mbokki jullit yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen baalu xàq ci lu njëkk ak ci lu nu yëgut di tuubal yàlla sunu borom ci mbooleem sunu rëcc rëcc ci pas-pas ci kàddu ci jëf di ko ñaanit mu nangul nu mbooleem sunu yiw ci mbaaxam ak yërmandeem ak canam toll di ko sant bu baaxit ci may gi nu may nu fekkewaat ci waxtu wi ci bis bii tam ànd ak wér ànd ak mucc ànd ak tawfiq ànd ak sutura yàlla na ko sun borom saxal ba ban koy fekki ndax loolu njàmbaar maynu ko ak ngóor yi maynu ko waaye coobareem ci la ñu ko defale moom sunu borom subhaanahu wa taala kon na nga koy sant ci loolu bu baax a baax di ndokkeel jullit ñëpp nag ci weeru màgg wu tedd wu sell wi nga xam ne ci lañ ci bàyyikoo di ñaan sunu borom bi subhaanahu wa taala lim ci dayle woon lépp ci njëggal ak yërmande ak gore sunu borom bokk na ko defal nun ñëpp te yàlla bu mu doon sunu mujj koor di ndokkeel jullit ñëpp nag di dellu di ñaaxante ak a fàttalante ak a dénkante li tax suñu borom binduñu te indi ñu ci kaw suuf te bàyyeendu fi it te diñu fi jële it te di te diñu jaarale ci ay jaaruwaay muy géntal adduna jaar ci sukaraat jëm ci tëraayu bàmmeel jëm ci biir sàq bar sàq jëm ci sunu borom dinu laaj wa kulluhum aatihi yawmal xiyaamati farda jëm ci kenn ku ci nekk it sa téere li nga doon jëf lépp di ko yéene ak a wax ak a jëf ak a melowoo ci kaw suuf it ne la wóor ni amu ci lenn lu rëcc sunu borom subhaanahu wa taala lu ci ne mi ngi bind ci ay téere te ëllëg sunu borom dana ko teg ci sa loxo wa kullu insaanin alsamnaahu taa'iruhu fi unuqihi wa nuxriju lahu yawmal xiyaamati kitaaban kitaaban yalqaahu mansuuraa iqra kitaabaka kafaa bi nafsika alyawma alayka hasiiba man ihtadaa fa innamaa yahtadii li nafsihi wa man dalla fa innamaa yadillu alayhaa wa laa taziru waaziratun wizra uxraa ëllëg ku mu doon ci nun li mu doon yéene bi mu doonee mu kàllaf suñ borom togg ko jëf mu doon ko wax bi mu doonee mu kàllaf suñ borom togg ko jëf mu ko doon meloo bi mu doonee mu kàllaf suñ borom togg ko jëf lépp mu ngi ci téere boo xamante ni dara du ci rëcc sunu borom subhaanahu wa taala te bu ëllëgee buñ teewalee ñun ñëpp kenn kum doon yaayu mat sa seere bopp donte dana la boole ku lay seede su boobaa buñ tegee sa loxo sa téere ne la wóor ni sa yéene ak say jëf ak say wax moom doog nga cay fekk te kenn du ko gàddul kenn su ko defee ñun ñëpp nu bàyyi xel loolu rawatina ak jullit ni mu war di dunde du caa génne na ko neex wala na ko jubloo wala na mu xalaate noonu la war di dunde waaye ab jullit dafa war a seet li yàlla santaane mu di ca def la man li suñ borom tere it mu di ko wattandiku su rëcc rëcc amee it mu tuub jéggulu yàlla ko bari njëgal la te lépp lu jaam def lu mu rëy rëy rëy su ko tuubee te sellal ko suñ borom mën na ko jéggal ci mbaaxam ak yërmandeem ak tawfeexam bis bii nga xamante ne ren yi jullit ñëpp wareendoo na ñit julleendoo ko day mel ni day rëy ci jullit yu bari te fekk nag am na lu ko gën a rëy ci nun am na lu ko gën a màgg ci nun am na lu ko gën a wér ci nun ndax julli gi ñu julli du farata te bariwaana kat jullit boo xam ne noo ngi bokk nekk ci jàkka ji bokk seen sàppe suñ nekk te seeni xol a ngi féewoo ñu ngi jàppalante safaan ñu ngi koy waxalante ñu ngi koy jëflante te loolu moo gën a ñor fuuf di wane ne noo bokk benn bis bu ñu julli bu ñuy jullee tey ñuy julli suba loolu kenn ku ci nekk la ko doy rek ca la nekk ca la jàpp ndax lislaam wuute du ci mën a ñàkk mukk mukk mukk ba keroog suñ borom delal dénd bi wala yasaaloona muxtalifin faaw ñuy wuute bu fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jógee rek la wuute tàmbali ci biir jullit ñi tey jii fi mu ne da nga naan siit ne ahlu sunna kenn mënut a fexe ba siidi nekk ahlu sunna wala ahlu sunna nekk siidi mënut a nekk boo ñëwee ci ahlu sunna yi dafa am ay ngir ngirum Maalik nga fi Shaafi'i Hanifa Ahmad te lu ak loola ak wuute rek la boo demaatee ba ci biir tasawuf mi mi ngi ci biir ci biir tasawuf it ak wuute am na ci ñii ñi ngi ci kër diine gee ñii ngi ci kër diine gee ñii ngi ci kër diine te kenn ku ci nekk lam nekk doy na ko te lam nekk jàpp na ko te jàpp na ne loola it mooy yoon moom gis ni ca la war a mën a jaar ba mucc ëllëg yowmal xiyaam waaye jullit bu ne na rafetal njortam ci bokkum jullitam lu mu mën a jàpp na nga ko jàpp lu keneen ci jàpp it bàyyi ko mu jàpp ko kenn ku ci nekk am sañ-sañu la ko doy mu téye ko waaye li am solo moo di enn bu mu di dox suñ diggante li ñuy solo nun ñëpp loolu rek la bu doon dañ naan kii wër na démb ak kii woore na tay ak kii tey la tabaski ak kii suba la tabaski loolu lépp amul solo ku ne na nekk ca la ko doy te bàyyi keneen ka ci des mu nekk ca la ko doy te bu kenn en sa morom bu kenn jàpp ni yaa gën sa morom bu kenn jàpp ni bis bii dong mooy bis bee ku ku nekkul ci bis bii lii defoo ca lee wala ku nekkul ci ngir mi nekkoo ci dëgg wala ku nekkul ci yoon wi nekkoo ci dëgg déedéet dëgg yàlla moo ko xam kenn ku ci nekk nag dafa am noo dégg dëgg muy alquran ak sunna ndax koo ci dem alquran ak sunna lay revendiquer ci wetu boppam kon dëgg moom yàlla rek ko moo ko mën a xam waaye nag kenn ku ci nekk la ko doy mu téye ko na ko jàpp te rafetal koo jàpp ne it dafa nekk leneen lu dul noonu boo koy xëcc def ko ci yar def ko ci teggit def ko ci tey def ko it ci ak dal loolu mooy li nga xamante ni mooy la am solo waaye jullit ñi dañuy dem ba dañuy eenante ci seen biir ngir ñàkk a wuute fu ñuy naane te wuute naanukaay moom ba keroog adduna yu tukki loolu mooy am kenn mënu ko fee jëlee li am solo nag moo di lañ bokkule ñu fexe koo rafetal lañ bokkule wutit ñu rafetal ko kenn ku ci nekk la la doy nga téye ko la sa morom doy nga bàyyi ko mu am sañ-sañu nekk ca loola kenn ku ci nekk mën a wax la mu gëm mën a wax la mu jàpp mën a wax la ko doy mën koo dund ci jàmm ak salaam yow it nga bàyyi sa ni nga ko dunde ci sa bopp it nga may keneen ni mu dunde ko noonu ci boppam waaye li am solo moo di bu kenn yéene kenn lu ñaaw bul ko wax kenn tey bul ko jëflante kenn te jëmmi suñ borom rek tax kon noo ngi dénk suñ bopp tey dénk jullit ñëpp li nu war nun ñëpp kat mooy wéetal yàlla ci jëmmam ci jëfam ci melokaanam na ci ndigal yi gannaaw bañ ko xamee ceet tere yi gannaaw bañ ko xamee di ñaan mën angul nu yiw yi te di ko ñaan yi mu jéggal nu rëcc rëcc yi nga xamante ni danoy gaar kenn ci nun kat ndax fi mu ne julli baax na lool waaye julli am na loolu bu ko dindiwut ci nun ñoo ko julliwut ñoo yem képp loo taxoo taxoo taxoo jàkka ji te fuñ la toll yaa ngi nekk ci fuñ la fekk yaa ngi nekk ci deri nit ñi moog dara ñoo yem ak jullit day wattandiku deruk mbokkum jullitam wattandiku alali mbokkum jullitam wattandiku dareeti mbokkum jullitam loolu la julli di jariñ loolu it la koor di jariñ waaye du caagee ni rek da nga ñëw ci jàkka ji allahu akbar sëgg siggi nopp xalaat loola neex ci sa àdduna dem saw yoon déedéet jullit bi dafa war di xool xolam ndax en nekku ci ci benn mbindeefum yàlla sax mu mën a doon ndax mbindeefi yàlla yëpp njabootu yàlla lañ te yàlla njaboot bu bu yées ba mel ni man it ñàkkut fu mu ko teg fi mu ne nun ñii ku ci ne sa doom bu doon màndi bay tërëf ci mbedd mi di tux di def la gën a ñaaw bu ab jàmbur taxawee fee di ko xas mu naqari la donte li muy def néexu la yow te boo sañoon nit mu jóg waaye ku taxaw fee xas ko rek bu naqari la sunu borom noonu la mel ci bindeefam yépp te kenn ku nekk noonu li ngay def yàlla xam na ko yëg na ko gis na ko te tëruut mu bàyyee ndi la fi lam la doon defal ci xéewal lépp mi ngi continuer di la ko defal te xamoo jaam bii fan lay mujj yow tamit xamoo fan ngay mujj lu ñu julli julli julli julli julli lu ñu woor woor woor woor woor daray pépp añaan ne ci suñu xol nanu wóor ni moog dara ñoo yem ndax julli ak koor yooyu yëpp ay saafara la yoo xamante li muy jur ci nit ki mooy dindi ci moom rëy añaan waaye foo fekk sa xol mi ngi tàkk ngir añaan ci lu yàlla defal nit nga ne lii na deñ ci sa xol nga di ko bëgg loola di deñ mu dem ba gën a tàkk nga di ko wax ci saw làmmiñ yoon wa yaakaar war ngaa mën a jaar ba yàqal kii wala nga yàq ko nga di ko def loola it ba tey ab jullit du ko def ab jullit du ko melawoo ab jullit dafay doon koo xam lépp lu yàlla dogal ci mbokkum jaamam da koy gërëm te da koy nangu te xolam da cee seddu guy ab jullit du gis boppam du gis ay jëfamit nit bu gisee boppam ni ñu koy waxee waxtu wu ne yàqu bu gisee ay jëfamit jëf ja yàqu ab jullit du jàpp ni moo gën kenn li fi suñu borom tàbbalu ko aljana mu gis kookee ca safaanub aljana te loola kenn àggagu ca yow loo baax baax baax ak nu la yàlla mën di bindee xamoo ci looy mujj xamoo kii nga bëgg a xeeb ak a doye di ci lan lay mujj nit bul ko xeeb ci ñàkkam bul ko xeeb ci lennam ndax xamoo fooy mujj xamoo ci lu muy mujj te li may wax waxtu wu ne nit yaa ngi taxaw fi béréb di xeeb nit moo xam béréb bu daraja la moo xam béréb bu am am la moo xam béréb bu lu mën a doon ci loo xam ne jaam bi dana koy daraja woo nga di ca ngay xeeb keneen ku nekk feneen ca leneen fekk kii ngay xeeb mi ngi dox jëm si fi yow nga yow nga dox jëm si fam nekk ndax réer sunu mujj war naa tax nuy teey war naa tax nuy def ndànk ndax fii ne nun ñii ñi ne fii ñi ci ëpp ñu ngeeg seen ñaari loxo man xawma sama ñaari loxo yii moom laay mujjëm déet maa ngi ak sama ñaari gët di xool xaw ma ndax moom laay mujjëm déet maa ngi ak sama tànk di dox xaw ma ndax moom laay mujjëm déet xaw ma ban jàngoro moo ma fiy dal boo xamante ni nu muy tëdde te loolu lépp nit day dox rek waaye xama ko ci dara te koo gis mu tëdd amoon na jamono ba ku ne ko woon da nga tëdd tër bii mu weddi ko léeg-léeg nga gis ku ñàkk ñaari bëtam ku ne ko woon da nga xëy jant ñàkk sa ñaari bët mu weddi ko léegi gis ku ñàkk benn loxo wala ñaari loxo wala tànk wala ñaar tànk ku ne ko da nga xëy jant lii nga ñàkk ko mu ni déedéet te gisoon nañu koy ñàkk mu di leen xeeb ak doy dale ko woyofal mooy tax adduna ku fi dund te génn góo fi la waxub lu ne nga la waxub lu ne nga mooy lu ne mën na laa gaar la nu war daal mooy di tuub di sant yàlla ci lim nu defal ci ak wér may na ko ak ci aw fan may na ko ci ak kàttan ñu di ko jëmale ci lu mu gërëm te bañ a xeeb kenn di ñaan sunu borom di ko sant boole ca di toroxlu di ko ñaan muusal nu ci ndog yi ak pakk yi ak musiba yi ak balaa yi te bokk nu defal mujj gu rafet bul doyadil kenn bul xeeb kenn te jëm yàlla rekk tax réew mi nu bokk dëkk yàlla na fi yàlla dolli jàmm lii weesu yàlla amal ko ci jàmm ak salaam yaakaar yu bare bare bari féete ci ñii yàlla jox réew mi noo ngi leen di ñaanal di ñaanal nit ñi ñoom yàlla nañ doon njiglaay nit ñi yàlla bu yaakaar nit ñi tas ci ñoom ndax lu ne nit ñi daj nañ ko ndax ñoom lu ne xew na ci réew mi ndax ñoom am yaakaar ndax am yaakaar ci ñoom ba sun borom yëkkati teg ci seen loxo nañ wëlbatikuwaat nag doon jaami nit ñi nit ñi doon seeni sang seen yitte yëpp na doon ci luy jëme réew mi kanam ci wàll boo mën di jël nag ci wet yëpp yàlla na leen ci yàlla defal ndam te defal leen ci barke yàlla ubbi seen xol te leeral ko may leen xel mu leer moo xamante ni lañ yéene ci réew mi ngir ñëpp jariñu ak képp ku fi mën a dëkke ak doxan dem bu dox ba agsi fi yàlla na leen ci sunu borom defal lu kawe seen njort te nit ñi gunge leen ci jàmm ak salaam ñoom it ñu bàyyi xel la leen fa teg seen kem kàttan yàlla na yàlla dolli ci réew mi jàmm te dolli fi tawfeex ak sutura noo ngi sant bokki jullit yi yëpp nag rawatina ñi nga xamante ni ñoo féete ci barab bii liggéey yi ñu fiy def yëpp ci kër Serigne Touba gi ak ci néegub yàlla bii sunu xol sedd na ci guy yu di sant ak gërëm it sunu bokki taalibe yi nga xam ne mboolem weeru koor wi ñu ngi doon jéem di dogal bindéef yi ci gën ngaa rafetin anam noo ngi leen ci sant te di leen ci gërëm di ñaanal sunu kilifa Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom yàggal ko te wéral ko ak kilifa diine yi ci réew mi yëpp ak jullit ñi ci réew mi yëpp ak ñi dut ay jullit tañ bokk dëkk réew mi nun ñëpp yàlla na nu yàlla defal jàmm ju sax defal nu xéewalu yaatu kenn ko ci nekk li mu bëgg ci boppam bëggu ko ci njabootam yàlla na ko suñu borom defal lu kaw njortam kenn ku nekk lam ragal ci bopp ragal ko ci ak njabootam yàlla na suñu borom dox diggam diggam ak loolee muy sax ci dëgg sax ci ak njub bañ a bëgg aw tagg bañ a ragal aw ŋàññ bañ a xool ku ñuy jub bañ a xool ku ñu wan gannaaw ne ci dëgg yow dong ak nekk ci ak junni nayam ci yow képp kenn ku ci nekk bi ngay ñëw ci kaw suuf yow dong yaa ànd booy dellu yow dong yaay ànd wa kulluhum aatihi yow dong lay doon kon nag maraaxil yu nu suñu borom man di jaarale lépp yàlla na dëppoog ngërëmam te mu defee nu mujj gu rafet noo ngi tuubal ñëpp di baal xàq ñëpp tey baal xàq ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf